maa ngi leen di bëggee man la Coura Mandio Mori artiste auteur compositeur ghostwriter euh, bàyyeekoo label Naty Dread Entertainment muy label euh, bi produit JTR euh, te xumaan sos ko ak Keyti ça fait un bail maa ngi maa ngi ci game bi mais je viens juste de sortir un projet et que vraiment projet yi projet bi am naa ci am naa ci am naa ci entière satisfaction parce que am naa ci lu sut sama njort am naa ci lu sut sama njort waaw. la jógee. Euh, mooy comme nga ne Ndiaye Jaata Ndiaye wala Thiaw Sey nekk Alassane donc man bambara la et que noonu la ñuy dàkkantalee sama famille Kouroumandioum Mori mooy Kourouma Mandi Mori Kouroumandi Mori. en bambara mooy l' enfant sorcier mooy l' enfant du guérisseur tu vois euh, ba may nekk booy ay jours comme fête yi tabaski korité bu ñu soloo ba pare sama yaay au fait bambara la gënoon dégg ko ko wolof léegi bu ñu soloo ñuy génn avant ñu julli ji daf ñu daan wayal ay wayu ay wayu graaw tu vois loolu xam nga kuruma di moori nii nii nii kuruma lii kuruma lii tu vois donc mu nekk benn affaire bu moo marqué euh, ba mu décédé euh, et que ma waroon choisir nom d' ma jël ko quoi Mballo Mbow lan moo ko dugal hmm. bokk na ci ñi ma gën a euh, ma gën a comment moo bi fàtte. Hmm? waaw ñi ma gën a influencé ci ci ci ci ci hip hop parce que euh, sama idole la woon sama idole la woon euh, maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm yërëm ko xaaree ko àjjana et fi mu nekk gënal ko fi mu fi mu fi mu jóge quoi tu vois donc may fréquente Bourba mu nekk sama mag nekk sama cousin euh, man Bourba Bux Gaston Simon ñoo ñoo nekkoon ci presque mën naa ne benn nekk tu vois euh, Gaston dem ba benn instant mu am problème ak Bourba ci mooy li arrivé à chaque fois mu dem ba mu demee mu def euh, ay son ça a marché mu continuer donc Bourba Bourba formé crew ak Bux Bux ak Budo ñoo bokk ndey ak baay ci lañ tegee seen kumpa ci lañ génnee album donc ci ci ci année yooyu noonu laa leen doon fréquenté ñoo doon fanaan ñoo doon def lépp tu vois mais à chaque fois Bux bëggul woon na ma rab mais Bux ay texte ko daan dama nekkoon booy quoi maay booy jàng ne man bëggoon na jàng xam nga jàngal nga màgg man ak suñu moo gën nga naan da ngay rab mu <laughs> nekkoon ay période yu ma yu ma marqué sama life yu ma dul fàtte Euh, ba buur ba décédé après 2008 2010 2010 laa commencé rap laa comme laa laay doog a dugg studio en tant que en tant pour def son quoi 2010 te buur ba laa doon defal son mais ça a marché euh, que gars yi ne ma ma ma ma ma continuer quoi waaw pour dire vrai xaw ma sax ngaa ko xamante wuñu mais dañ ko tëj. ma ma ma gis ma gis un peu partout ci rappeurs yi am ñu ciy doon jouir quoi comprends nga de ci seen wax day mel ni dañ ko koy yéene comprends nga je man je me dis que lii game la game mooy jeu après nag dañuy bàyyi parce que il y a ci ginnaaw ay ñoom fi nekkoon tey ay Hercule ay Dip ay Pharaon ñi ngay dégg suba day amaat ñeneen dañuy bàyyi ñu n'est-ce du ñu dem ba egg ba ba suñu copain wala wala suñu naataangoo rappeur di dugg prison ma ciy kontaan comprendre nga loolu nit war ko yéene nit war ko yéene nit quoi et que ma ma def ci sama participation bien vrai que xaw ma ko on se connaît pas mais ba may bind ba may bind texte ba ma tolloo foofu loolu moo nekkoon sama xel donc loolu laay def quoi tu vois. essence yi projet yi fa la toll rajo mhm. mhm. bi ci sama EP bi génne la bokk euh, Medina sama Medina boobu ci sama EP bi génne la bokk EP bi génne na euh, maay di santaale waa Medina parce que jaay naa fi 1000 exemplaires te ama grand sur musuma xalaat ne nit ñi ñu ngi may sax bàyyi xel parce que li ma daan nekk li ma daan nekk studio moo ëpp li may nekk ci mbedd mi tu vois mais. ba ma ko génnewee am na ci am naa ci am naa satisfaction parce que mille exemplaires boo ko jaayee fi dafa mel ni dafa mel dafa mel ni ñëpp jënd nañ ko parce que booy dañ koy jënd di ko paasante il faut nga janoog seetu xam sa melokaan yenn jëf yi lay feelu sa jëmm di melokaan gis ñi magal te jotuñu am amoon rêve ni man ñu matal teel a bokk ci ñu mawti daan seetu jot ma woon liir bu juddoo gëmm loxo yi muy ñëpp yuuxu yuuxu dënn yaram bi yëpp di xëpp jàng màgg xel mi way jógal doona toogone màgg njool attan am kattan sut baayam karaw sax fu ne yoonu ndama gën a sori foog nga dox lu bari dox lu toll ni fii ba Paris yenn li ciy dis di bari fas fa jom te seet fu ne toogal janok sa seetu gis leneen lu dul sa bopp ci lépp lu ne yee waaw maa ngi bëggee waa 221 people di rafetlu euh, invitation bi di bëggee ma bro Pharaon ak sama gaay Medina for life King Crew am aaw